gannaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sant Cheikhul Khadim euh, tey li ñu dajale lu lu simple la maanaam dañoo ñëwoon tey ngir fii nga xam ne fii lañ cosaanoo di Kaolack ñu màggee fi yaroo fi tey bëgg ko lool ba leneen luñ ko dara ci àdduna ndax dañoo bëgg Kaolack lépp lu ñuy def Kaolack ma maanaam Kaolack mooy mooy jiitu d'abord donc buñ fi maanaam lépp luñ fi gis loo xam ne intérêt personnel la dañ koy xeex ñu suñ combat loolu la social la dimbale la ak xeex loo xam ne ni tey waru ma ma maanaam waruñ ko fay ma maanaam waru waru fay nekk fii ci biir gox bi. dañoo ay njaboot dañoo ay njaboot njaboot yoo xam ne ñoom ñoo ñu yar nampatal ñu ba toll nii ñu toll. seen adduna yëpp dañ ko daw seen adduna yëpp dañ ko daw ngir njaboot donc bu ñu leen loree rek ñu dinañ loru ñun ñii nga xam ne ñun ñoo ñoo ñooy seen doom ndax lompoñ lañ mënatuñoo wax ndax mu talatuñ lu dul kër ñoom ñoom kër rek lañ tal ci aduna kër moo tax ñuy daw commerçant boo gis ci adduna kër moo tax muy daw deux mille trois mille francs la ñuy am par jour te moom la ñuy joxe dépense loolu la ñuy daw pour joxe ko dépense donc ñooñu la ñuy xeexal ba nga xam ne kenn dootu leen mun a rol loolu dootu kenn dootu leen mun a lool ci àdduna. leen lool lenn la mooy grande surface yi nga xam ne ñooñu maanaam grande surface lañ bëgg dugal biir kër de ville de Kaolack ñun moom la ñuy xeex lu ci mel ni Auchan lu ci mel ni Carrefour lañ ne warul nekk biir warul nekk biir cœur de ville de Kaolack. Auchan warul nekk ci kanam maanaam maanaam ci diggante décret boo xam ne la république moo warul nekk maanaam warul dend ak marché Auchan dafa war a nekk foo xam ne tey maanaam ñoom maanaam waru xatal commerçant yi ndax commerçant yi ñoom 3000 la ñuy daw ak 2000 Auchan kenn xamul ñoom fu ñu jugee dañuy jékki-jékki rek ñëw rek ñoom def lu leen neex mi mi Auchan mi four stratégie bi ñu taxawal lenn la képp kuy délégué ci biir marché bi gis nañ la xeex bi du maanaam day day doog a tàmbali tey dañoo def benn coalition boo xam ne lay doog a tàmbali. chaque semaine wala chaque jour ñun ñu ngi ci biir xeex bi ba nga xam ne Auchan du maanaam duñ ko def biir cœur de ville de Kaolack c'est parce que warul nekk biir cœur de ville de Kaolack képp kuy commerçant nga nekk ma maanaam nga nekk doomu Kaolack wallahi al azim jugal nga taxaw ñu taxaw ànd taxaw xeex lii nii parce que du intérêt personne Macky Sall du maanaam manam du fol nit ci torox maanaam pour toroxal sa askan ndax moom toroxalul askanam Macky Sall day dimbale askanam dafa yërëm askanam